وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل فديتني بذي الكبار والكسل وجدت لي منك بما بي غزل

di leen wax ne tey nag fii waa centre Serigne Sidy Mokhtar ñoo organisé woon benn safar safar gi nag di ci santati Serigne Touba si Ahmad Bamba Khadim Rasoul euh, di sant goo xamante si nii daanaka dañu xëy ko gën a sant rek waaye sant gi moom mënu koo fay. 2017 dafa naa lañ ko commencé ba ren ko dañ ñaanal suñu borom gën ñu fee teeluwaat ay déwén déwén di gën a santaan bu baax a baax ndax am na mbégte bu baax bi ñu yàlla teeluwaat fii ñu war koo defaat ñu ko defaat ren nii comme ni ñu ko daan defee ndax ku gis euh, ni mu taxawee nii kon ñoo ngi euh, gis nañ si ak yokkute bu baax a baax te dañuy ñaanal suñu borom gën ñu sa yokk gën gën koo teewalwaat képp koo xam ne nii nag bokk nga ci bis bi man amel naa la ak cant di la sant bu baax di la gërëm ndax yaakaar naa lii nii ñu def dafa rafet ñu doon ay xale yu ndaw bokk fu ñu sàkkoo mécca ñun ñëpp ñu dajaloo boole suñu àddiya boole suñu xalaat yëpp mu doon benn ñu ne dañuy defal dañuy defal bis sëñ Touba kon loolu lu ma rafetlu la te lii bu ñu ci kenn jëlee lii ñu nekk nii bu ñu ci kenn jëlee. te nag ñu organisé woon safar boo xam ne si ñu ngi ko daan def chaque année ñu koy def tey te nag ñu jàpp ko cinquième jour safar bi voilà di ci di ci gën a sant bu baax a baax daanaka ñun ñu fi nekk ñëpp rek ay responsable lañ ñëpp a a tëj tey rek ngir jëmal bis bi ngir màggal bis bi di gàttandoo tamit suñu bis bu mag bi muy 18 safar di bisu màggal gi moom lañ koy gàttandoo. di santaat tamit ñi nga xam ne maanaam ñoo bokk liggéey bi muy centre Serigne Cheikh Sidel Moukhtar di 18 safar si juróomi fan bi nga xam ne chaque année nii lañ ko daan doxalee ak boole kooku mbooloo mi xam ñoo bokk si si centre bi di ay téyeer di ay ndaw ñu nangu ko loolu dañ si santaat suñu borom baax a baax ndax tamit liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom xol bu nangu dong dong dong moo ko man képp koo xam ne nii soo xol nangu wut doo bokk fu ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa képp koo xam ne nii jox nga ko san ndaw mu teel la sang mag képp koo xam ne jël nga sang ndaw jox ko Sëriñ Tuubaa rek boo demee ba doon mag doo jaaxle ci dara waaw ndax gis nañ fi gis nañ fi ay mag ñaa xam ne ñoo daan liggéeyal sëñ Tuubaa ñooñu ba léegi nii seeni sët dañ leen di sukkal di leen raamal loolu nag firnde la nañ bëgg sëñ Tuubaa ay gone lañ mais doon gone du tee bëgg lu baax waaw bul ne kiy jàng olofal dane bul ne mag laa te bul ne xale laa ak sant yàlla bawul ku am xel bisu safar bii fu nekk dañ cee génnee saw ñaq ñu koy def di ci sant sëñ Bamba bu baax a baax di ci santaan yàlla bu baax nag voilà organisé wu ñun ñëpp kenn ku ne boole sa su ñu lépp lañ boole rek daanaka xamee woo ki def ak ki deful lépp rek ngir sant ci Serigne Touba waaw di ci am contentement bu baax a baax a baax a baax daanaka mbooloo mi ñëpp ngi fi kenn tëlul dara ngir bis bi ngir jëmmal ko di ñaan yàlla tamit ñu àgg ci bis bu mag ba defee defee ko ni nu raw niñ ko defee tey. dafa nekk mbooloo moo xam ne ni seen xol dafa ànd rek saa bu waxtu bi nuyoo rek day mel ne seen xol da daa nuyoo ñu bokk bokk li ñu bokk lu ñu bëgg di bokk la ñuy def ñii nekk fii amul kenn koo xam ne bokk nga sa morom amul dër bu ñu koy tegal amul dara saa bu ñu waajalee safar bi rek sañuy door a dajaloo wax suñu soxla wax ko ni ñu ko bëggee rek mbooloo mépp fekk suñu ginnaaw man mi xam ne man def président nag moom motuma président dañ ma bëgg a jiital rek ngir may may may wane yoon rek waaye man ku may gis xam ne moom motuma motuma président day boo dee xool samay jëwri rek ñoo fi nekk. waaw at biñ ko fi njëkkee commencé dañ ko def toogu ay bernde comme nii jàng ay kaamil wàcce ay kaamil. jàng ay xasida def def si karulaa ak yëpp ngoon jot ñu ñaanalante dem def nañ ko première année mu jàll ñu def ko deuxième année mu jàll bii mooy suñ troisième année te dañoo bëgg bii nii dàq yiñ daan def yëpp ndax yoonu sëñ Bamba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am. kon ñun kenn waruñoo jiitu ci sant sëñ Tuubaa parce que suñuy waajur wàccoon nañ ak ñun parce que jàngal nañu lu alxuraan ah yar nañ ñu fi ñu war a yaree li des si ñun la li des si ñun la muy ñu bëgg sëñ Tuubaa bëgg xës day sëñ Tuubaa yi nii loolu dong moo des ci adduna bi parce que fii lépp fi def lu dul liggéey sëñ Tuubaa rek nga ko ñu nag a rëy mii muy màggalu Tuubaa ñun mbégte moom rek lañ am voilà daanaka ni ma koy waxee su à tout moment ñu may ree daanaka chaque jour da ngay dégg Sénégal chaque jour ñuy jàmbat ay dëkk bi daa metti dëkk bi daa naqari réew teru rek bu jub rek day mel réew mi réew mi moom daa belli daa mel ne daal day mel ne maam sëñ bi dafa màggal si indaale nañu xéewal goo xamante si ni daanaka poos yi day day dis gann gann gann gann di gën a mbooloo mi nga xam ne ñoo topp sama ginnaaw nañ dañ maa jiital topp sama ginnaaw wax yàlla maa ngi sant bu baax a baax ak rawatina suñu mbokki jigéen ñee ku si nekk yaa ngi sa kër te da nga bàyyi sa kër ñëw bokk ci liggéey bi ndax ku si nekk mën nga ne kat damaa yor doom wala damaa sama nijaay nangam wala sama bàjjan nangam waaye bàyyi lépp ngir sëñ bi bàyyi seen i place tëj ko ngir sëñ bi kon nag di sant ci Serigne Touba di sant ci Serigne Touba di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaw di wax ne alhamdulilah rabbil hamd yàlla na yàlla dogal ñu teew ko ay at yu bëree bëree que am na am na koo xam ne nii dégg naa da doon jàng dafa am xasida gum doon durus bi mu bi muy bi muy durus xasida gi ba faat léegi bi mu faatoo ñu daal di koy ñu daal di koy ñu daal di koy dugal ci biir bàmmeel ñu koy bernde maanaam xasida gi mu doon durus ñëw di ko bernde di ko bernde di ko bernde di ko bernde ba mu laajte man man kii may bernde kan la bi mu waxee kii may bernde kan la ñu ne ko xasida goo daan jàng xasida goo daan jàng biir adduna moom moo la indil bernde yi kon xasida yi sëñ Tuubaa yi lépp loo xam ne nii mënu ko rek amut maa ngi taxawlu foofu sama kàddu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل فديتني بذي الكبار والكسل wajutali milka bi maay bi xasal rabatani